nous allons quitter Dakar pour aller en Gambie dem Gambie dem seti kooku nga xam ni moom moo di Bin Buba's Creation from Gambia so happy to welcome you to Dakar you in Dakar and you are at home salaamaaleykum Bin Buba's yaa ngi am jàmm. ñu xool sa élément bi jóge Gambia te dellu si na nga def. maa ngi fine. mbaa yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. ana waa Gambia. ñëpp a ngi fa. ñëpp ngi foofu. yow kañ nga commencé ñaw Gambia. Um, ñaari at si gannaaw. ñaari at dong. nga commencé ñaw. Mm-hmm. lu tax yow xanaa yow kaa nga woon. déedéet man si lopitaan bi lay liggéey la technicien la. ci lopitaan bi ngay liggéey hospital yeah. hospital you work yeah. at hospital. yeah I'm a technician. okay. Eh, lu la dugal kon ci ñaw bi. dama bëgg a fashion rek bëgg suma bopp. da bëgg fashion bëgg sa bopp. Mhm. kon nañu xool li nga indi jëlee ko. Gambia ok lan la Gambia indi ñu daal di dem léegi léegi Gambia ànd ak Bin Bouba's création. waa yow man dama waaru. Gambien bi yaa ñaw ak ñëw. DJ bi yëkkati sa micro. Mm. la laaj des. ok yow yaa ñawli. ak xeeb. ak xeeb. waaw ko xeeb nii. yow da nga xeeb li waaw yéen tàccu leen kii. yow lii yaa ko ñëw ak xeeb nii. ak xeeb. lii mu defar nii rafet na wala rafetul. rafet na création la wala du création. Bin Babas Bin Boubas from Gambia waaye yow. lan nga def nii ci ci ci ci ndiggu xale bi nii. this is a fiplam tap with a princess skirt. ah maanaam kubu princesse. tey ngeen dee déggu leen lu muy wax de <laughs> ah? créole la nii. jupe créole. yeah. crayon. crayon ci def waaye dama ko yow nii yow boo déggoon wala fi toj de. <laughs> laay day la lii lan la lii robu galapaadi la. lii mun naa red red carpet. mun na dem red carpet maanaam tapis rouge. yeneen ak yeneen. waa lii moom est-ce que yaakaaroon ne artiste bu yéeg seen comme Kumba Gawlo wala Viviane wala benn artiste bu war a am benn show bu nganda war naa mën a def bi ah di nga ko mën a defal bii de. bu daxa bi bu daxa bi. waaw ndaw si dina ma rey nag de bala moo ñibbi Gambia ah, bi eh xool leen li yéen tàccu leen ko nag waay ah. Bin Boubas, you still working at the hospital and you make creation. yes? the hospital. Médecine you a nurse? Lab technician. Lab technician. Yeah. Laboratoire, technicien de laboratoire. ëpp na si déedéet ah non maa ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ah, would you like to explain me this this this model. Which one? The brown one? The, the brown one, yes. Yeah, it's a Thai dress and it flowed at the floor. It's okay for red carpet and a lot. And a lot. Reception. Uh-huh. Yeah. and every red Ladies and gentlemen, we are in Gambia tonight. Motabaski in Gambia. We've been Bubash Creation in Gambia. This is a big, big, big, fashion show and a big one. We love it and it's so different and it's so lovely. We're so proud to welcome this lady from Gambia. What's your real name? Binta. Kayra Mrs Dramé. ok Binta Kayra Mrs waaw ñu xool faneen fan lay génnaat waaye yow tam génn na fu nooy dee ay waay fu mu génn nooy na nepp yéen d'accord ngeen ak Gambien bi di d'accord ngeen ak moom bu ngeen d'accord dama bëgg ngeen tàccu muy dégg mu xam ni you agree you agree with them waay yow What's this? How you call it in Gambia? This is a top with a flared skirt and it's having trimmings. Uh-huh. Yeah, the trimmings more mean um, tough. Uh-huh. We call it trimmings. Okay. Yeah. Fii ñun dañuy wax high bass. No, no. I'm talking about um, the um, high bass bi uh-huh. is a top and a flared roasted. Uh-huh. and then the three minutes is called yéen taf ngeen koy ooyee. ñun taf lañ koy ooyee ñun three minutes la ñun three ngeen koy woowee. waaw wuy ma jaune bi tam dañ ci yokk doore. Uh, ah yow tamit ñeme nga tàccu leen ma ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yàq nga xale bi ah. bi sa jabar laa tuddee. madame Diallo kii madame Diallo maam jaara nga tuddee verre d'eau bi ëpp na tàccu leen ci maam Diarra ji Diarra ji doyul bay des ëpp na. ku tàccuwul ci maam jaara da ngay ñibbi jóg leen ñibbi jóg leen tas naa xew mi jóg leen tàccu rek baa ñibbi wuy ma kumba cuuraay fi indi li may leen ma ma ma pis ko ci maam jaara ji cuuraay la waaw yii lay def kumba cuuraay ak sauvage ah ëpp na mais bi nga tuddee maam jaara macha allah ver bi baax na soxna si taxawal taxawal taxawal taxawal fi taxawal taxawal taxawal xoola Ahmed xoola Ahmed xoola Ahmed mii waaw waaye yéen tamit lii lan la nii lan nga def ni ubbil jupp bi ñu xool ah, tamit nag yéen tamit nag tàccu leen maam jaara bi waay yéen tamit nag xam nga sama xool bi sedd na waay lii tam ëpp na waay yéen tamit nag lii lu koy fay ah? Gambia lii dara fay ko ah? cëm bii grand boobu bu baax xale yi bu dara set ay doomu géy na ngeen bu dara set gubbi moom ñëpp ko dem Gambia Gambia nag ñu ngi fa àndandoo ki nga xam ne moom moo di Bin Bubas Bin Bubas création mu daal di indi ay modèle am daal di ko jëlee Gambie ñu daal di koy jox mesure rek mu daal di daggal xale yi loo xam ne macha allah xoolal ma bii xanaa bii suñu lay lady nga koy tuddee wala seen first lady. seen first parce que du benn la. comme benn la nee na moom suñu lay di la koy tuddee suñu first di mooy Mariam fay Sall bii tàccu leen première dame bi première dame la ko tuddee xanaa kon moom ak borom këram ñoo nekk nii. Eh, président ak première dame ëpp na. wala groupement bo ëpp na tàcc leen loolu waaye oh déggal li xale Gambia bii xale Gambia bii xale Gambia bii defal musique ma xool ñu dem Gambia sama kaw ba suuf maa leen ndaq solu fuuf bul di jaale du bëri mooy sañse xool fu ma mën a gën a ngare fii nga du ci yére yi ci man nii la xool ma ni ma du ci yére yi ci bin bu baas la du ci yére yi ci bin bu baas from Gambia la ëppatalaw kenn mësul gis lii ah? ëpp na laa day na laa xoolal grand mbubb bii mu tuddee first lady bu Sénégal première dame la tuddee li nga xam ne moom moo di grand mbubb bii ah lii moom dara fay ko xoolal ma lii xale bi moo jógee Gambia ñu koy wax Bin Boubass création li mu jëlee Gambie bu dee neex na leen bëgg naa ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax kontaan nañu ci yow de sa dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kontaan nañ ci yow oh cim waay dégg loolu dara fay ko kontaan dara fay ko ma ne eh, mbay oh ëpp tëlaw ëpp tëlaw ay yéen xale gambi bi xale gambi bi dina tax kuy ñawloo ti jël avion dem ba gambi yaay ñawlu soog a ñëw de xoolal lii tàccu leen lii lang gi riis na langu waa Gambia riis na langu bin bu baas riis lan nga def nii DJ tilla ma def ko one arm and then ma um, nga def ko benn manche moom lañu naan one arm waaw a black. Uh-huh. ma uh-huh. taxawal tuuti soxna si xoola Ameth mi waaye yéen tamit nag tàccu leen li waaye waa Ndakaaru waa Banjul la ngay tàccu waa Serekunda ngay tàccu waa Bakawa ngay tàccu waa Gambia ngay tàccu First Lady yaa ngay tàccu kon nag uh, macha allah ki nga xam ne moom moo jógee Gambia Bin baas création. bàyyeekoo Gambia eh, ñëwaatal maa boo yow ba kenn laal la DJ lii kenn mën koo gis laay lay la la mu seeg madame bu ñu àndee dañuy promenade ñëw d'accord ngeen ne xale Gambie bi toj na fi de bu dee toj na fi ngeen tàccu seen loxo ma xool xoolal manche yi xoolal mauve bi ñaari mauve mauve la jëlaat teg ko ci kaw mauve yow mii yow mii <laughs> love it really. We love it really. Thank you so uh, much. We love it, and it's so different. Uh, and uh, it's so so so so lovely, Thank really. Thank you so much. Yeah? I really how long how long you do that? Um, in four days time. Four days time. nee na mi ngi ko ñëw ci ñeenti fan. Ah, four days time. Uh, which color is it? It's a lilac color. Yeah. Lilac. moom ngeen di ooyee light mauve. mauve. waaye xoolal manche bi benn manche bi dama bëgg rek ngeen xool tournel wan ko amet fii wan leen xool leen Ameth yéen ñaar xoolal benn manche bi xoolal li nga xam ni moom la def yéen tamit ki jógee Gambia tamit yàq nañu nag gate nañu dëgg dëgg gate nañu wuyu ma ëpp na li yéen ñaar tamit dara fayu leen ñëw c'est exceptionnel alors le temps que ñuy dellu a bu baas Boubass yow nga ne since two years nii yaa ngi ñëw euh, ñëw daf la neex waaye yow tamit nag man ma defe woon jeex na waaye yow lan nga defati ñun tamit yow tamit boo jekkoo da ñuy baal affaire bi du yow rek waa Ndakaaru ci lañ bokk waa Ndar ci lañ bokk waa Touba ci lañu bokk waaye yéen xale Gambia bi lan la def nii xoolal favorite. ah this is your favorite moom li mu defar yëpp bii moo ko ci gën a neex. tàccu leen loolu waa jën tamit nag. kaay jege ma ñu snap selfie kaay ñu jël ay photo àdduna yëpp gis ko lii ak war ci maamo ëpp na am am couleur bi la ñu rool la may lii ndey moo la may lii dégg ah oh mën nga pichu pichul pichul oh oh oh oh oh ëpp na daay day dala kumba cuuraay moo génn ci cuuraay yi génn ci parfum yi bin bu baas daal di jóge Gambia waaye li mu créé tamit boo taxawee ñëwal ñëwal ñëwal Ameth foofu baax na taxawal taxawal taxawal Ameth a ngi noonu waaw kay xool leen lii yéen tamit nag benn ñaar ba ñett why this one is your favorite why you love it taxawal bul dem. lu raar ak lu classic and this is so classic. and this is so classic. yeah. thank you that's very kind. yow booy wax élégance booy wax lu raffiné booy wax couleur bu baax booy wax yëre star pire ah. ma indil la ajuza nga defaral ko ah dina la neex ajuza buy ñëw Gambia ma jox ko sa numéro mu woo la bu ñëwee jël ay mesure am ah? léegi nag ñoom ñëpp ñu daal di ñëw muy défilé bu mujj bi muy final bi ñoom ñëpp ñu gis leen nga gën take a picture ak ñoom après nga ñëw fii we get a talk together ñu daal di toog ñu daal di waxtaan ñun ñaar ñu gën a xamante yow we get a know who you are and where you from and how long you do that Eh, bu ci gën a rafet nga ne bii la xoolal jaune bi xoolal couleur bi ak til bi xoolal ma bii grand boobu xoolal ma bi grand boobu jigéen xoolal ma buy grand boobu góor xoolal ma bii création xoolal ma mauve fële picture with them demal photo ak ñoom te ñëw. ma bëgg ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax encouragé ko bin bu bin bu base creation from Gambia euh, ñu jël picture moom ak euh, ku sol lu jaune li waaw oh rafet na am na élégance c'est chic merci beaucoup merci les mannequins. mën nga ñu joxe waa Gambia ñi ngi lay seetaan sa phone number. Um, sumo phone number is 00220 7019321. Okay. Yeah. You get a, can you introduce yourself in Gambia? To introduce yourself to Gambian people. Okay. My name is Binta Kaira, Mrs. Drame. I'm a young lady married to Mr. Buba Drame. Um, I live at Carnifin. My workshop is in Carnifin. um, and I'm a lab technician. I love fashion. Yeah. We yeah. just gotta say you thank you. Would you like to thank someone? Yeah. Who? suma yaay maam suma mm-hmm. goro yi. su ma mm-hmm. njëkkee woon suma jëkkër rek du ma soo njëkkee woon sa jëkkër rek du ma waxaat ñeneen ni doo waxaat sa ñeneen moom yàlla bi am fayal na ko yàlla fayal boppam sa jëkkër moom soo waxee rek mu ne bébé yi can do it just go yeah moom daf la gëm daf lay jàppale boo waxee rek mu ne la baby you can do it ah <laughs> grand bi baby la koy woowee eh, baby <laughs> tàcc leen loolu waaye grand bi baby la koy woowee we so happy xam nga dañu am benn xarit bu tudd Kumba Cuuraay ak maa ngi Xadi Fay Xadi Rifaat Xadi she's wonderful suma magi bopp la waxal Xadi ne ko ñi ngi ñëw Xadi Gambi moom xam na yee xam euh, bii xam nga mi ngi tudd minuit xam nga minuit nu ngeen di waxee minuit in Gambia twelve twelve minuit la lépp di xew mm-hmm. this is minuit it's for you thank you so this is minuit and boo demee boo demee xam naa ni am nga yu baax waaye grand bi na nga ko gaañ fii xam nga ladies yi fii lu ñuy def. Hmm. dañuy jël drap bi. Hmm. drap bi ngay tëdd ñun passé nañ foofu. ah yéen dépassé ngeen foofu. dogal dem suma atelier bi tam maa ngi gërëm gars yi di leen sant thank you so much. di sonn nañ trop. sonn ngeen trop ah, waa atelier bi yëpp. Hmm. jógal dem man bàyyi naa la <laughs> man dama laa defoon sama xarit comme que nee nga yéen waa Gambia ah am rek ma may la garaaw am rek yóbbaale dégg nga thank you tàccu leen ma ko bu baax a baax a baax a baax a baax.